dañuy jàll jël avion dem seet kii di Ousin Ousin. arène nationale la ñuy wàcc arène la ñuy jëm wàcc. tey ngaa teg bàkku bi kon. moom ñëpp fa koy def. njuub mun nga mun naa njuub su ma wàccoon fii su ma wàccoon fii fii toj. ah moo. est-ce que duñu dëggal maa est xam nga benn affaire. waaw xam nga ne Baye Jili da doon bëre. Baye Jili ah bon. loolu maa ko doon yëg. da doon bëre maa ko doon yóbbu ci kanam laa doon taxaw. Ah bon ñun toj nañ làmb ji. man instant damaa bëgg am combat mag Ouzin. ah d'accord Fatou tëgg ko. pourquoi pas Mbacké moo koy tëgg. waaw xam nga wax leen ma def leen lutu wax ma jour bi muy ñëw kam ma joxul bas jox leen ma baabu bëreew ma. Ah, waaw jox la kam ah, kam ñi fi nekk kon nañ la jox Amar. bu la joxee Amar sax maa ko man. instant yii bu la joxee yaakaar bu day mel ni maanaam salaire bi ngay fay. ak ngay dépense ñuy dama doon dëgg ñoom man ñoom du lamb. xam xam nga ngay xam lu ak yow. ak lu ngay dépense ça ak kàbb waaw su ma ko jëlee samay samay supporter ñu naan xamuñu kooku woo ñu ko jël dañ may mere looloo tax du ma ko jël. moo tax suuf lay jaay dem si actualité làmb dafa mel ni làmb na waat. waaw daanaka tijji na nag. daanaka tijji na ndax euh, démb ñii waa CNG daje nañ fee fi nga xamante ni mooy arène nationale. doon joxe waat parce que mbokk yi bu ñu fàttalikoo euh, am na combat yoo xamante ni jotoon na yegsi. ba bu ñu nee ci guddi la combat yu ci bay yàqu bu ci mel ni combat Marley ak ki nga xamante ne mooy Nokorel la. ñoo bëyoon waroon bëy ci dimanche bi veyu dimanche bi samedi ci guddi hmm. euh, dëkk wàcc ñu ne amuñu service d'ordre ba tax na làmb yi yàqu na moo tax démb waa CNG kii di Bra Sène maa ngi ko nuyu baax a baax ak membre yëpp hmm. daje nañ fee fi nga xamante ni mooy arène nationale toog ak promoteur waxtaan ak ñoom ba trouvé nañ terrain d'entente boo xamante ni làmb yi nga xamante ni jotoon na taxaw wala ñi nga xamante ni jotoon na ñoo fisale jox nañ leen ay jox na leen calendrier ñu tànn date yi ñu bëgg ba ñoom ñëpp ku ci nekk déggoo nga ndax ki nga xamante ni nii mooy Pape moom mi tëggoon combat Boy Niang Tapha Tine moom combat bi mu ngi war a am le 19 décembre 19 décembre euh, ki nga xamante ni mooy euh, Siteu Papa Sow moom moo ngi am le 5 décembre ki nga xamante ni mooy Abou Ndiassé ak Pape Ndoye moo ngi war am le 21 novembre ki nga xamante ni mooy Quincy ak euh, double moteur moo ngi am le 28 novembre ki nga xamante ni mooy la ak euh, marle mhm. moo ngi am le le 10 octobre mhm. la war am ba tax na nag gars yi waxtaan nañ déggoon nañ defe naa ni amateur yi doon jooy mhm. ak ñi nga xamante ni bëggoon nañ làmb ji fi mu toll nii nag mbëree waa a waajaat ndax waaj bi metti na combat boo xamante ni ku ci mel nii si te Papa Sow Euh, ak yeneen mbër yoo xamante ni préparé nañ combat deux ans mhm. wàccaay dafay métti six mois sa dafay métti ci mbër ndax sarax yi day bari mhm. sëriñ ñi nga war yónnee xaalis mhm. waa dem ci saal bi fay sa coach yi yëpp ak lekk bi day xaw a soo ko bëggee di waaj pendant deux ans day xaw a métti ba tax na maa ngi lancé appel ñi nga xamante ni ñoo leen di jàppale mm. nañ ci jàppaat bu baax baax te xam na mbëri fi mu toll nii vidéo nañ tàkk tàkk tàkk tàkk jeexal nañ dépasse nañ lépp jeexal nañ ak fu réew mi toll fu réew mi toll en comme nga waxee bëgg nañ bu baax a baax lii di làmb daal di waat parce que c'est notre sport traditionnel c'est notre sport euh, national et on adore la lutte kon boog euh, ñoo ngi ñaan gouvernement bu baax baax mu daal lii di arène bi par gars yi mën a bokk santé tuuti tuuti mbenn noo sa mbër sax ah, sax nga mbër man am naa mbër mais xam nga rek fi mu nekk nii dama dama dama bokk ci réew mi daal mhm. waaw ma ne mooy sama mu nekk dama <laughs> bokk dama doon responsable kon instant yi nekk nekkuma star mais dama am wàll ci réew mi daal comment il s'appelle encore le comédien Gab Gab moo ñu koy. Gab parce que Gab Gab non seulement def xarit ñu xaar ko invité bi samedi moom la. Mm-hmm. Mm-hmm. merci beaucoup amul problème. mais euh, comme ka waxee dafa doon am solo dafa mel ni làmb ji maintenant moo commencé. Euh, di tourner waat. tourner si ban bon Omar ba mm. mu ñëwaat en force quoi. waaw làmb nag yow xam nga ni làmb moom mooy Sénégal Sénégal mënoo wax Sénégal tuddoo làmb. tuddoo làmb tey jii doo demee États-Unis da gis football américain nga dem ci japonais yi am nañ seen façon ba nga xam ne ñoom mooy seen mooy seen sport national. ñoo mm-hmm. la Sénégal am suñu sport national boo xam ñoo ko moomal suñu bopp. jéggaanewuñu ko fenn. Mm-hmm. làmb dafa bokk Sénégal dañ ko fay war a boole nit ñi maanaam mbëri yi nga xam ne xale yi gis nañ ay xale rek ngay gis ñoo xam ne chaque jour duñ toogee lu ñuy wax dañoo bëgg teral suñu waaw suñu yaay suñu baay loolu nag moo war a may suñu président de la république wala suñu gouvernement à chaque fois lépp lu ñuy def rek ñu boole si ax lu làmb ñu ñoŋal lépp maanaam lépp dafa war a ñoŋ ay comme par exemple dagg dagg dagg dagg dagg waroon nañ leen bàyyi ñu bëri. Mm-hmm. waroon nañ leen mën a bàyyi ñu limité comme li stade bi football bi def. football bi dañoo limité nombre waaw nombre de personnes mm-hmm. waa ñu def loolu. bu fekkee dañuy subventionné waat waat kii bi sax wala ñu wàññi ay ay ay ay mooy taxes yeeg yenn yu muy fay. Mm-hmm. pour mën a dékku loolu noonu. lamb bi continuer man loolu laa gis. Ouzin vous avez parlé de Papa Sow et Ouzin et Siteu on va rester sur mm-hmm. dafa mel ni def na tamit lu am solo si wàllu inondation yi. waaw mbokk yi foofu sax laa woon njëkkee ndax Siteu samedi euh, defoon na loo xamante ni nii doon nañ ko xaar ci maire yi doon nañ ko xaar ci politiciens yi waaye dañuy faral di wax mbër wérul mbër dafa dof. mbër dafa nangam mbër dafa nangam mais tey mbër yi geste yi ñu def. Mm-hmm. si ñi jiite réew mi lañ ko doon xaar gannaaw ñoom ay porte de voix lañ saa bu ñu jógee réew mi jóg saa bu ñu jógee gox ba ñu dëkk dañuy jóg ba tax na Siteu semaine balee ñu génn njëkkoon na jox ay moto pompe mu gis ne ci xelam ne doyul ba tax na am na ñoo xamante ni ci staffam lañ bokk wala ay nitam lañ moom wax na ko sax ci biir vidéo yi xam naa danañ ko ci gis inchallah quinze moto pompe la jënd mhm. dix mag cinq yu ndaw jël ko tasaare ko fi nga xamante ni nii mooy bii jàmm gën ndax yamul jàmm gën kaw bi ñu fa gis naa ci ndaysaan benn imam boo xamante ni moom jóge ba Kër Masaar nee na jumaa ji ñuy jullee dafa fees dell ak ndox hmm. te yaakaaruñ ko kenn ku dul Siteu mu jox leen moto pompe ñu mën a pompe foofu mën fa di dugg di jaamu yàlla kew bi ñu li mbooloo mi bari bari moom tàllal nga ko ci hmm. mu jox cee wax jot cee gërëm ba nee na moom sax bu dul woon eh, kiiwul waaye bëggoon na simee ko sax bëgg Siteu ndax xol bu sedd tax <laughs> bu sedd tax ba tax na moom ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax ndax eh, geste bi ñu def rafet na. Mhm. keroog bi muy signé Papa Sow dama ko dégg mu ne chaque tabaski da doon jënd ay camion xaar di ko séddale. mais fi corona bi toll fi làmb ji toll ak ni dëkk bi ñàkkee xaalis tax na ren mënu koo def. Mhm. waaye gis nañ bi taw bi ñëwee taw maam yàlla bi mu ñëwee mhm. développé na ay moyens boppam. dugal ko ci loolu parce que xam na ne lu mënul ñàkk la te lu mënul ñàkk fa mu am mu génnee moto pompe yi tasaare ko mu nekk loo xamante nii nii ko wax naa ko nee ko képp kuy mbër wala képp koo xamante ne dafa jege ci làmb man du ma wax sax ñi politiciens yi képp koo xamante ne da dund ci làmb wala boog làmb da yitteel geste bi soo ko mënee def ñu ngi lay ñaanal yàlla nga débloqué sa moyen def ko soo ko mënul boo ci mënee am ay partenaire nga sama yoon nekk si waaw sama ah. rek. équipe nationale bi <laughs> football rek. lamb rek tey lay football. yàlla xam na ni yaa ma ko yëgu ma bu baax a baax kii di Siteu euh, maanaam si yooyu effort yooyu xam yëpp moo ngi koy def ak apport kii di Wally Seck parce que dégg naa ñoom ñaar ñëpp mm. def nañu ay apport yu am solo on t'encourage vraiment Siteu bonne continuation et lépp loo xam ne am nga ko si làmb ji yal la ko yàlla fëlal euh, bu mu di gën a yokk